torolu Sénégal léegi dama bëgg Ndeye Fatou mii mu fexe ba amaat interview Ousmane Sonko mu wax ndax li li euh, outside wax ne premier bari mu mu ngi door a génn wala Ousmane Sonko la mu doon wax 2016 ne ñu ngi manque pétrole bi lan moo ciy dëgg bu fekkente ne la Ousmane Sonko wax wax mooy dëgg outside li wax du dëgg

waxu Pastef démb ak li ñu jotagun def. absolument. maintenant pour li nga xam ne ñoom lañ jotagun def. Mhm. Euh, damay jëkki ñoom loo xam ne ñoo ko waxal seen bopp. Mhm. dañoo génne benn bataaxal ci bëccëg. tuddee ko les 100 jours de Diomaye. la conférence des leaders benn ñoo ko ñoo ñoo bu. Diomaye ñoo ko génne. ma bëgg ci wut ñetti juróomi ponk. Mhm. muy bilan bi ñu seen bopp ne ñoom def nañ ko fi. bu njëkk ba ñu ne. une augmentation des recettes budgétaires les recettes budgétaires ont augmenté de 3,6 au cours des 4 premiers mois de 2024. Mohamed les 4 premiers mois de 2024 ñu recettes budgétaires, recette budgétaire un budget bi de na ci. premiers mois de 2024. 4 premiers mois de 2024 ban ban janvier. février mars mars avril C'est ce bi lii lan la ci un bilan deuxième bilan deuxième point emploi. Mm-hmm. le président de la république a montré son sens du dialogue et de l'écoute en rencontrant les organisations patronales et syndicales. Le mm-hmm. président ci wàllu xëy utum xëy ci xëyum nit ñi daje naag patronat syndical ak ak ak ak ak mm-hmm. syndical patronal deuxième point bilan hmm. industrialisation. oui nous, le président de la république le gouvernement une priorité euh, réaffirmée pour créer des richesses et des emplois notamment dans les secteurs hydro des hydrocarbures hmm. de l'agroalimentaire et des vaccins. c'est-à-dire le bilan bi l'industrie, industrie une priorité industrialisation. Hmm. waaye waxuñu dara luñ fi def ci biir ministère bi dañ ne rek jox nañ priorité loolooy bilan ñu bëgg a def. alors bi ci dàq nag mooy quatrième point bi muy mobilité bi. ci seen bilan. Mm. nee nañ la mise en service effective du BRT. waaw nee seen bilan ci mbirum mobilité dem dikk bi nee nañ ñoom ñoo ci seenu seenu seenu euh, xew ci la BRT bi tàmbalee liggéey bi. Mm. loolu seen bilan la bokk. Mm. ah diplomatie mooy bu mujjee juróom bi ma mujjee retenir. Nous le Sénégal consolide son leadership sous-régional et affirme ses positions de principe sur la scène internationale en gros le premier le 2 avril 2024 le 10 muy Téméri fan Le Sonko waxuñu fi Sénégal le fi lu Sénégal alors parce que euh, Jomaay ak Sonko dañoo waxoon ne ñoom am nañu projet boo xam ne nee na ñeenti junni nit ñoo ko bind problème mu Sénégal yi yëpp identifier nañ ko ak solution yi mhm. yaakaar naa bu fekkoonte ne projet boobu nekk na dëgg kon seen bilan bi li ñu wax nii duñ ko fi wax sànq bi ci des Ousmane Sonko moo ñëw conseil des ministres mu ne projet boobu amul ñu ngi koy wut nañu koy bind dañu daañu daañu daañu joxe liggéey bi fin septembre. et pourtant Mohamed. pour projet boobu ci la Ousmane sonk woote woon mortel combat. ba lu mat juróom ñetti fukki nit faatu ci. ay téeméeri nit am ci gaañu ay milliards réew mi yàqu ci ay milliards doxandéem yàqu ci. ay milliards seen yàqu ci.